علماءنا الأجلاء طلبة العلم أساتذتنا الكرام إنه لشرف لنا بأن نلتقي معكم في هذه البقعة السلفية البقعة التي خرجت جل دعاة غامبيا نسأل الله أن يبارك في هذا المعهد دائما وأبدا آمين وأن يقوم لقائمهم وأن يمنهم الصحة والبركة اليوم إخوة الإيمان نحن في موضوع مهم ولا نخاف لومة لائم نحن مع موضوع مهم ولا نخاف لومة لائم لأننا لسنا من بدأ في هذا العلماء الأجلاء المخلصين كلهم حذروا عن مخاطر حذروا الناس مخاطر الصوفية ما من عالم جلي إلا وقام وتكلم وبين للأمة مخاطر الصوفية وشيخي وحبيبي أهل لهذا الموضوع شيخي وحبيبي أهل لهذا الموضوع لذلك إذا جاء أنا وشيخ جام أقوله علنا أننا نحن الذين اخترنا الموضوع بأن نعالجه حتى لا يبقى أمة الإسلامية مستعبدة أمام الناس متى كما قال أقول لكم مقولة عمر بن الخطاب متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ومن مخاطر الصوفية أن يجعل الناس عبيدا لهم ñoo سانتي نيب دي جيرم نيب دي سانتي يالا yàlla bi nga xam ne moom moo yelloon cant di ñaanal bërëb bi bërëb bu tedd bi bërëb bi nga xam ne ku wax si ñun jaar nga fi ñaata la génnee ñaata kaadari la génnee bëri na kenn du ko mën a lim kon ñoo ngi al ittihadul islami al gambi yàlla def si barke ilal abadil abidin di ñaanal suñu sëriñ fi nekk fa minhum man qada nahbahu ومنهم من ينتظر وما بدلوا تب وما بدلوا تبديلا ñu ngi taxaw rek di won ñu ngi diine bi nga xam ne moom moo wér tey nag boo xam ne xam na si jot a wax waaye ñun soosey dafa am lu ñuy wax man fa wax boobu noonu ngeen jéggal ma si nag man ni ngol boobu na faloo naa ye toli faransi aka moo la toora a seewo ka moo la toora wo bëggan toora ni min ballandir wona woton kumanna min ɓeela kuma ɓe fola woton kumanna ni ya fo fo fola a karandala wol fana yena woton o ndolaga ton bon katugo moole natan naban ko kan jang mi ko ay suufiyanan a ɓalute kono fa kete kono ceebaata ha ala sila cendo na ni daga siira suwa kono nga toog sa si sa kamb bi xaw ma si sa puruux bi la ngay wax ne ñii xamul lan mooy suufiya ñun dinañ la wan xam ne lan dinañ ko xam te seen ma xaatir dafa bëri torop moo tax cheikh bi ñëw fii ñu tànnal ko mawdu bi pour mu jàngal bi pour mu jàngal bi cheikh nag Gambia daf ko muta daf ko jàppale Gambia kiram noonu la jàppee Gambia démb si guddi rek moo ko doon wax nit ñi mu ne moom sax bëggul nit ñi di wax ne Gambia Sénégal waaye mbir mi Sénégal bi la noonu ñoo ñëw rek tàqale ñu kon moo tax moom at bu nekk ren ci woo nañ ko Europe pour mu dem defi muhaadara foofu noonu mu ne leen dafa tase muhaadara Gambia te waa Gambia buñ ma wooyee Amérique oo ma ma dem Gambia kon yéen Gambien yi na ngeen ne kii mooy seen cheikh bi nga xam ne daf leen bëgg mu yëkkati leen ngeen gënal ko lu nekk moom équipe ba bi ñëw fii insha allahu alim dañ koy bàyyi rek pour mu ñëw suma mawdu bi nga gis ne oustaz yu bëri ñu ngi fi oustaz Ali Diakana oustaz Thierno Thiam ñoom ñëpp dinañ taaliq insha allah oustaz sama sëriñ tamit mu fa oustaz Ali Thiam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 السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته الحمد لله على كل حال نانجي ما قال الله تبارك وتعالى دي الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم دي كنيان الجم موم أكي صحابam التابعين له بإحسان إلى يوم الدين دي وخني إن شاء الله سنكتفي بافتتاح أخينا وحبيبنا الحاج ثار لم أخرج من نكو ديلو نيب بانا نك دي تعليق موي غدو ولا موي سوري نوغي غرم al aimma wal asatida ñi fi nekk ñépp nga xam ni ñoom ñoo nekk ci bërëb bii di nàmpal gone yi al sharia al islaamiya loolu yal yàlla fay leen ci dëgg-dëgg fay defal leen ko ñoog seen njaboot ci seen misaan xasana beneen bi mooy dana ma bégloo lool ma gis ni masjid bi bërëb bii ñu nekk tey daanaka ñu fi nekk ñépp ay kawar yu ñuul ñoo fi nekk te loolu moom mooy am yaakaar mooy am yaakaar ci diine lan moo tax muy am yaakaar mooy bu ñuy tabax te gis ni li ñuy tabax ay birig yu dëgër lay nekk kon dañuy sant yàlla te ku nekk xam na ni ndaw ndaw lu dëgër la buñ ko tabaxee rek lépp dana bax sunu jotay bi comme ni nu ko sàkkoo won muy khataru turuq sufiya ala al umma mana yonu sufiya danger bi mu am te indil ko société bi wala société bi bok ku nek xamna ni as sufiya ab mbooloo la boo xam ne ubbeeku na te ba mu ubbeekoo yàgg na waaye li ci am ci ay dérapage li ci am ci ay yàq-yàq dafa bari beneen bi mooy sunu waxee du duñu taamim wax ne suuf suufiya yépp ñi ko nekk ñépp ñu bon lañ waxuñu loolu loolu na ko ñëpp bàyyi xel ndax mbooloo moo dem dana am ñu tane am ñu baax amit ñu yées kon lii nu bëgg a waxtaanee liñ ci jublu mooy ñi yées ci biir te munuñ leen a jubbanti lan moo tax munuñ leen a jubbanti bépp mbir mu ñu sos te teguwul ci ay nusuus yu leer kenn du ko mën a contrôler لولو موم لولو موي سنه الله في الارض لان موتا الشريعه الاسلاميه اك سنه ني من دي كوريجي كو نيك بارسكا دا فا ام نياري مبير يو تاخاو سونو كانام تا نيار يويو موم لا نيي لاج موي القران اك سنه سو القران ني ديف لين ني ديف سوني باي لين ني باي سو سنه ني ديف لين ني ديف سوني باي لين ني باي لكن بودول ahlu sunna ci mbooleem turuq yi nekk ci àdduna bi amuñu lu leen boole ñu mën cee ànd nekk ci benn loolu mooy première seetlu bi ku nekk ci yéen war koo seetlu Cheikh ji wax na ni bi may commencé mu ne xëy na yàlla natt na ma ñu bokk ci ñu ci mën a wax naam war nañ cee mën a wax ndax dund nañ ci lu bare bare bare bare nit su dundee dara yàgg ci ba bari ci teraanga bu ne kooku wax ci lu mel noonu du bari jafe-jafe ci moom moo tax su ma doon wax ci a suuf asuufiya su ma neexee damay gëmm sama yoon nag nekkul ci kiy tontu di saaga di wax di xas ndax xam naa ni semaine bi yëpp loolu la gaa yi tàmbale di saaga di kii waaye nag defe naa ni képp ku nekk ci dara te am ay dalil yu leer jàpp naa ni saaga du nekk sa tontu wala ki nekk ci dëgg dëgg-dëgg kooku soxlawul di saaga nag dafa soxla ay dalil yu biir yu leer waaye nangam nga nàngam nga nàngam nga loolu ay xale ñoo koy tontu waaw ndax yëfi xale la nag dëgg-dëgg yëfi xale dañ koy bàyyee xale yi rek incha allah rabbi Euh, beneen bi mooy yàlla daf ma nattu sama dund nekk dund bu xaw a metti ñi ma jege xam nañ ko suma famille xam nañ ko suma askan xam nañ ko pexe mun a jéem nañ ko ci man te ba léegi ñu ngi ci lu mel noonu waxtu bu nekk lan moo tax lu mel noonu xëy na la ma nekkoon ca loola génn te di ko leeral te man maa taamu loola ndax damaa nekkoon ci réer gu metti réeral ci ay nit kon war naa jóg la ma yàqoon ma jéem ko defaraat eh, barki démb dëkk sunu mbokk mi bànjul bi ma nekkee ci muhaadara bi bay waaj a jeexal di def ay nasaaix su ngeen seetloo bi may wax baat bi xaw na changé rangoon dugg ma jooy dugg ma waxuma ko nag ngir wanewu waaye am na ñett ñu ma jot a wax lan moo sabab loolu li sabab loolu mooy jamono bi may nekk ci suufiya di nekk li ñuy wax allah baay allah baay nga xam ne dañuy tëgg di fecc di def lu ne ci laa ci laa nekkoon amoon ci kàddu gu rëy ñu di ma déglu may waxtaan di fecc comme ñëpp te di feccloo nit ñi eh, moo amoon gàmm bu ñu organisé woon ci Banjul man maa waroon a ñëw ci gàmm googu def ko yàlla ci kàttanam ak yërmandeem nattuma ma feebar mujj gi ñëwuma yàlla def bi ma ci génnee ak fi may wër di dem fu nekk chaque jour sama xel bi da doon nekk ci bànjul kañ laa fa mën a dem ba la ma fa naroon a waxi ma changé ko far yàlla dogal ngeen yombalal ma ko fal jazakumullah xeyr yàlla yàlla fay leen yiw loolu moo soriloo suma xol mo sori lo suma xol lol lol leg leg bu may wax ci mawdu bu melni damay melni ku ànd ak sidda da ngay foog ni bu may wax dama nek ku soxor wala ma nek ku bagn soufiya déedéet soxoruma bagnuma len waye dama gis lu bëri luma ma won te yàq ko te ma dem ba mu leer ma ni ndeke yàq la kon loolu su ma ciy waxaat du ma ci am benn déngi-déngi insha allah laa naxaafu fiihi lawmata laaim kama na cheikhna hada buñ ciy wax amuñ ci tiit amuñ ci xalaat ndax jàpp nañ ni lii ñuy wax ku koy weddi da nga koy weddee teg si waaye xel ak saaga rek <laughs> loolu moom du ko weddi eh, wax naa ko benn góor daa saaga ba doyal ma ne ko góor gi mu ne ah, ma ne ko man gaanagu màgget laa weñ jaaxalu ma xam nga gaana gu bees la weñ yi sonal. waaw mooy toog di wokkati weñ laal mu naan fii naan fii mais gaana gu màggat weñ yi day dox ci kawam nu leen neexee dundatu leen faalewu leen loolu moo tax lu mel noonu su ma ciy wax dinaa ci na beneen bi yii ma bëgg wax nii attaqué wu mag ñi ndax mag ñi ci boppam comme sénégalais ak gambien ni ñuy waxee mag ñi lay attaqué boo waxee ci dara ñu ne ñoom lay attaqué. manam dañu jël mbir mi jox ko mag ñi ngir mbir mi nek tuhma bu yaatu ñu mën ko tek sa kaw lan mo tax dañuy bëgg buntu bu ñu toog pour jaxassé la ak société bi jaxassé la ak société bi ci mag ñi la wax ñi ci deppok lu bax fa jazahumullah ñi ci deppok leneen dañ leen di ñaanal yalla dañ leen di ñaanal yalla waye nak charia euh, islamiya mooy diina joo xamante ni ku juum nag danañ ñu ni da ngaa juum loolu moom amul kenn ku nu mën a may ngant ci bunt boobu incha allah dinaa tënk fukki laaj ak ñeent mu nekk euh, muhaawara fii ma bayna na mboolem lu ma wax fii su laajee du ñàkk ñu ko mën a tontu ci suñu biir biti jiitu mooy ki nga xam ne day askanale boppam ci ne moom suufi la wala dafa bokk ci at-tawaifu suufiya da bokk dama koy laaj lan moo tax mu tànn tur boobu wulif tur bi ñu yàlla tànnal ban tur la ñu yàlla tànnal huwa sammaakumul muslimina min qablu wa fi hada waaw ndax tur bu mbindeef sos war naa mën a tolloog ki bind jaam ñi tur bu mu sos ah ndax ku am xel dina bàyyi li la yàlla tuddee di jël li keneen tuddee boppam ndax ku am xel di nga nangu lu yonent bi ñëw sallallahu alayhi wa sallam ne ci bii laa ànd ndax moom la ma sam borom sant nga bàyyi ko ne naa uti beneen bu ko baaxal nag baax bu jéggi dayo ndax xel mën na ko nangu ka tax nga di ko def ndax dab na muhammad ndax nuru na muhammad ndax yàlla da koo taskiya te jàpp naa ne yëpp lu ngeen di tontu. déedéet ñaareelu laaj bi mooy yaa axi hal taalamu annaka tadiinu llaha bi cheyin xaadisin fi diin yow mi tànn ne da nga bëgg a nekk ab suufi est ce que xam nga ni li nga jël di ko jaamoo yàlla lu ñu sos la ci kaw suuf est ce que xam nga loolu mu des nag ndax xam nga lan mooy lu ñu sos dafa bëri ci suufiya ñoo xam ne dañuy def te labbus ci yenn mbir yi léeg-léeg yenn mbir yi dañ koy jël buñ ci amul tontu di jaxase suufiya ba léegi xàmmeeguñu lan mooy bidaa seen muskila bi gën a rëy mooy xamuñu bidaa munuñ ko leeral xamuñ ko foo leen indee ci buntu bidaa ñu dugg ak yoon ci buntul urf wal aadaat nun lañuy def dangay wax ak ñoom ne leen lii bidaa la benn góor dañuy yàggul dañoo def benn compilation xam naa ni moom ba muy wax sax jubluwuma man waaye li mu wax moom mooy bu ñu jógee naan bidaa bidaa te moom muy wax daa takk lonet gaa yi jël ma wane ma ak sama lonet yu ngand bind ci ki ngandi bidaa <laughs> def loolu ma bind ci suuf benn taaliq tontu ma ne alhamdulilah xam naa ki wax lii yal na ko yàlla yërëm xamut lan mooy bidaa dund na ba dee ràññeewul bidaa su ràññee woon bidaa dana xam ne lonet bokkul ci bidaa lonet ku jàpp ni bidaa la yow da ngay nelaw léeg-léeg nga dégg ñu ne pourquoi mu naan bidaa ñuy sol panlon di sol xamis amul bidaa buñ ko waxee mooy sheyun yuxdasu fi diin yuraadu bihi maanaam mooy lu ñu def ci diine namm ca tuyaaba kan mooy takk lonet di xaar yàlla fay la ci am na nga sol pantalon di xaar yàlla fay la ci am kon bu ñu waxee bidaa diine ji moo tax ñuy wax parce que borom bi subhanahu wa taala dafa indi islaam jox ko yonante bi sant ko tegal ko lii nga indi bu ñu ko laajee yonante bi xamu ko xamu ko mais ci diine la ñuy wax mais ci aada ak àdduna ku nekk xam na ni ñun dañuy demal suñu bopp selon ni teg fii ñëwee waaye loolu mënoo koo wax ni lii bidaa la wala du bidaa parce que lu ñuy soxla la loolu nga jàpp ne yow dang ko jël yow bir na la ni ci muhdathati la bok waaw bir na la loolu ci bidaa la bok lan motax ndax as-sufiya bok yi lam tazhar illa fi bidayati al thalith al-hijri ñettelu siècle ci gàddaayu yonent bi le sufiya juddu kon ndax yonent bi gis nako fekke nako ko bakr gis nako fekke nako as sahabatu kiram gis nañ ko fekke nañ ko waaw kan mo gën ñi يرانتي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وفي رواية خير القرون قرني خير بيجن خير نيون نيب جاب لا ني موي خير بي يونتي بي دوند كو نيك خامنا لو مل نون يونتي بي يارول تيومو صحابه امول تيومو امول تي صحابه كو كي لي ني امو تي lan moo tax ki leen yar moo toll noonu alquran di wàcc di leen corriger ñuy jël xeet woowu kenn du tolloog ñoom ñooñu dund nañu yàlla gërëm leen te deewaguñu laqad radiyallahu anil mu'minin yàllaa leen gërëm ñuy dund tazkiya leen ñuy ñuy dund ndax kenn mun naa mel ni ñoom xoola tur bi leen yàlla tuddee al نون وقل لقد رضي الله عن الصحابه وخو دي تي pourtant سوكو نيهون واخكو لقد رضي الله عن لانهم مؤمنون يالا ني گرم نا ني گم تي الصحابه الكرام دانيو گم داخ كلهم عدول ñoñu dund nañ ba génn àdduna baatu suuf ya nga gis ci biir suuf ya ñuy lay naan ci ali ibn abi talib la la jóge du deug Ali xamu ko ali ibn abi talib xamuko musuko def ñuy indi ay buntu ahadith yu mawdu ak ahadith yo xamne dafa febar ah di wax ni ana baytul ilm wa ali babu xamantene yo xamantene do xam fuñu ko rabbe maanaam man may néegu xam-xam ali mooy buntu beeg yi demee noonu indi ko tënk ko teg ko mais ali ibn abi talib xamul lan mooy suufiya waaw mbokk yi ñooñu dund ba dem ajjana te ñun leer nañ ñi dem nañu ajjana defe naa kenn fii sikkul ni saxaaba yi dem nañu ajjana kan moo ci am sikk xanaa ku xolam feebar waaye amul saxaaba yi ñépp dem nañu ajjana góor ak jigéen waaw lañu jaar ba dem ci ajjana ñun bu ñu bëggee dem ajjana mënuñ koo doyloo ah munuñ koo doyloo waaw ndax saxaaba yi nekkuñu woon ñu ragal yàlla boo waxee ñu ne la suuf yi dañuy zuhd ani dunia ana kan moo gën a dëddu àdduna saxaaba yi am na ah dañuy wax ne suufee dañoo indi wara saxaaba yi kan moo leen gën a fegu am na kon tur bu ñu indi boo ko fekkee ci biir saxaaba yi dañu koo àbbu du seen tur toog naa ceeg benn boroom xam-xam ndeysaan sama benn mbokk Haalpulaar macha allah ku am xam-xam nag macha allah bëri xam-xam lool ñuy waxtaan bi ñu waxtaanee ba ci yàgg mu ne ma yéen li ngeen di wax ci suufi ya amul ma ne ko ah, indil ma lu ya indi mu ne julli ma ne ko déet julli moom Muhammad a ko indi mu ne ma woor ma ne ko avec moo ko indi naafila moo ko indi jàng alquran moo ko indi lan nga may waxal lu suufiye indi te yonente bi indi ko ci lu baax lépp loo ma waxal lu baax suuf suufiye moomu ko moom kay leneen nga may waxal ñu mën cee dugg waaye bu dee jaamu yàlla dëddu àdduna ragal yàlla dellu ci yàlla di jooy ci julli di jooy ci jaamu yàlla mën a woor mën a nàngam kooku doo ko fekk ku dul ci saxaaba yi moo tax dafa am ñetti ndaw yu mel ni yéen bëgg lu baax lool dégg yonent bi ni mu mel ñu ñëw di ko seet si fekkuñ fa yonent bi ñu fekk fa yaa Aïcha ñuy laaj dund yonent bi ci këram ñu wax leen yonent bi ni meloon ci baax kenn ki ne man pare naa dootuma dog ci sama dund ba ba may dee damay woor rek abadal abidin kenn ki ne man pare naa dootuma takk soxna keneen ki tamit wax esaan biñ ñuy wax ko yonent bi yonent bi dafa leen wax rek xam na maa leen gën a ragal yàlla de loolu est ce que am nañ ci sikk lakin ni asuum wa uftir damay woor di dog nga fekk ci biir suuf ya koo xam ne daan day woor giiru dund loolu fan la tege loolu ban diine la ndax diine bi muhammad moom la indi woor sa giiru dund amul ci sharia islamiya amu ci mun nga woor woor lu baax la waaye nag dangay ngay woor di dog dangay woor di dog ndax ci biir suuf ya amuñ ci ñu ñuy tuddee euh, ñoo xamante dañoo dëddu àdduna ba soxlawuñ jigéen ah am na ci nit ki su ko neexee mu soisir loolu waaye yonent bi choisiru ko te moo la gën ah nee na laakin ne ni nisa damay takk ci soxna yi damay takk jigéen waaw takk jigéen tee na laa baax bal mooy tax nga gën a baax ah yow nga ni dootoo takk dootoo sa takk soxna yonent bi di la jàngal ni la maa la gën waaye damay takk soxna nga bëgg ñëw ci yi ngay def yu baax yépp boo ci tudd bu baax yonent bi sallallahu alayhi wa da koo defoon amaa nag bëgg ne man suufi laa suufi ñoo gën a baax ndax ñoo indi ragal yàlla dellu ginnaaw loolu ku ñu ko wax nga nangu ko dangaa ngaa xamul lan mooy sa charia sa islam mais yi nga wax yu baax ni yëpp sa islaam ko moom. beneen bi mbokk yi ndax xam nga ni bokk na ci pas-pasu suufiya waxuma ñëpp nag dañoo gëm ni ar rasulu xuliqa min nuur xuliqu min nuur waaw mbokk yi lii di musiba. ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak yonent yëpp ci leer la ñu leen bind loolu ndax wutewul ak alquran ah ah yéen yoon dangeen di wax nag bu ko dee bu ñëw Umar Sall wax rek ma ni maag booy yi ñoo àndoon <laughs> loolu loolu la ñuy wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax bokkul ci aadama aadama xuliqa min turaab xuliqa min turaab ñoom ñu ñëw ñu ne déedéet xuliqa min tiin mu nuroog nag li nga xamante ne ñeneen diine yi moom la ñu wax ndax yeneen diine yi dañoo jàpp ni ñoom seen yonent bind ci leer lañ leen bind nga gis ñun suñuy kilifa di ko bàkkoo yonent bi yàlla daa dagg leeram bind ko ci ñeme leen rek nee leen yonent bi yàlla la mu jeex lu ngeen bugg a wax wax leen ko jarul làqatu bis boo saxalee ne yàlla dafa dagg ci leeram bind muhammad kon da ngaa bëgg a wax ne muhammad yàlla da ngay làqu làqu bi jaru ko ñeme ko kon wax boobu musiba gënu koo rëy musiba gënu koo rëy mbokk yi bokk na ci gëm bi ñu war a gëm ni ñun yàlla daf ñoo bind ci coobareem jaaral ñu ci aadama aadama jaar ci suuf yonante bi askanee ñu doomu suuf askanee ñu ñu bokk ak suuf kon waruñoo jël yonante bi ne ci leer lañu ko bind yonante bi tàqalikoo ak ñun alquran moo ko wax qul innama ana bashar waaw innama ana basharun mislukum yuha ilayya bashar la waaw banil bashar ku ci bokk ci aadama nga jóge kon loolu bu lenn ci suuf yee gëmee ni yàlla dafa dagg ci leeram bind Muhammad kon am na fu ñu nar a jëm ñu ngi jëm ci hulul dañ koo ñemewul wala xamuñ ko mais foofu lañ jëm ñaareel bi wala ñetteel bi mbokk yi lu bari ci ñoom dañoo gëm ni anna rasula yura yaqzatan yaqza la manama lu bëri ci ñoom dañ koo gëm anna rasula sallallahu alayhi wa sallam yura yaqza baada wafatihi sallallahu alayhi wa lenn ci ñoom dañoo gëm ni yonente bi mën nañ koo gis waxuma sax gént xam nga bu doon gént coow du bari ndax man raani fil anami fil manami fa ka annama li anna cheytaana la yatamassalu bi ku ma gis ci gént dafa mel ni gis nga ma ndax cheytaane mënumaa misaal ñi yàlla bind ñëpp cheytaane mën na leen misaal ba mu des muhammad sallallahu alayhi wa sallam lu yàlla doon bañ bu bàyyi woon cheytaane mën a misaal muhammad diina yëpp yàqu chaque jour da nga ñëlaw mu ñëw ne ana rasulullah té mi ngi koy def ah mi ngi koy def ci yenn dof yi ñu ngi koy jël dama ñëw ciaré sam ben pa ñëw né ma <laughs> oustad alhamdullah ñu waxtam ba caag mu né ma ku bax ki la gis ku bax ki la gis mané ko kan mu ne ma yonente bi ma ko ah, alhamdullah lool de mat naa bu dé yonente bi nga gis mané ko nu mel mu ne mu saan njool la mu sew lool sikkim bi tuuti lool mu yoro yat ma ne ko désolé góor gi gisoo Muhammad de désolé nuñ ko waxee ci anglais unfortunately <laughs> <laughs> ma ne ko góor gi désolé gisoo Muhammad de kii nga wax ne du Muhammad gis nga Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dañoo jàngale dundam soo ko géntee dañ lay laaj ki nga gént nu mu mel boo ñu nee daa njool bopp ñu ne la uh-uh. daa gàtt bëpp ñu ne la un daa ponkal ñu ne la un yonent bi taayam benn la xoola dañu ko topp topp topp topp ba xam ay kawaru bejjaawam ñaata la wallahi kawaru bejjaawam man kenn xamul sama kawar bejjaaw cheikh bii toog kenn xamul ko cheikh kenn xamul ba tam waaye xoola yonent bi dafa bokk ci yàlla lu mu aaree sharia islamiya dañoo topp yonent bi ba kawaram dara du réer moo tax buñ la ko waxee ñaareel bi bu na nit ne gént naa yonante bi xoolal fu muy teere rek lan lay wax li muy wax rek ci ngay gaaw a àttee mbir yi kenn du gént yonante bi mu yokk ci diina ji lu ci bokkul déedéet loolu mënul nekk mu wax la lu bees mënul nekk mu yokkal la wala mu wàññil la muy ndax ndax ni sharia bi meloon mel na ko ba pare te avant moo génn àdduna nee na allahumma fashhad loolu mbokk yi bu ñu demee ba ci biir suuf ya ñu nangu ne nit mun na gis yonante bi mu jox ko sharia mu indi ko wala mu jox ko ay wirdi mu indi ko wala mu jox ko ay ñaan mu indi ko ñu jël loolu ñun di ko jëfandikoo mooy ñun dof dikkal nañu parce que loolu mënul nekk mënul nekk beneen bi mbokk yi bokk na ci ci biir suuf ya am na ci ñoom ñoo xamante ni دنگا ييمو منهم من يظلم انه يكلم الله من غير واسطه امنا تي ني جاب ني سيرين بي ولا كليفا غي مننا واخك يالا كوم ني موسى دون واخك يالا لول لول دنگ كوي غيس يو خامي دنگا ديغ مونان يالا نيكو مو نيكو بي مو ديم با في يالا نيكو جارال في مو ن يالا في لاي جار لول لول قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين لول يمبنا يالا كوني ولا ديغولن كو loolu ñëwul fii ci gaam ci rajo yi du ngeen ko dégg. ñun de daa fee Sénégal del ki ñu gën a yab nag mooy Jibril seen fas la ñuy desee ne mu laaf rek yenu jumaa juma wala mu yenu kaaba gi ñu ne mi ngi koy indi man xaw ma ban photographe moo photo Jibril. ngay fekk loolu nga ni lii est-ce que ndax lii diine la loo xamante ne loo xalaat rek nga jàpp ne loolu lu mun a nekk la beneen bi. bokk na ci gëm nañ ñi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi dund ci biir bàmmeelam ruuxam xelam xalaatam léppam comme ni mu mel bi muy dund ci kaw suuf ñun ahlu sunna dañoo gëm ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñu ko ziyaaree bu jullee ci moom yàlla da koy delloo ruuxam mu fay ñu waaye gëmuñ ñi nag mi ngi dund ci biir bàmmeelam donte yonent yi sax du leen laal sax du leen lekk sunu wuuteeg ñoom dañoo jàpp ne yonent baa ngi dund foofu ci biir bàmmeelam yonent bi léegi dañoo jàpp ne day naaw daa mel ni drone rek waaw ku yor sa xalqatu zikr rek ne <laughs> yonent bi day ñëw ak i saxaabaam ñëw rek lal sa morso Abu Bakar toog gauche Umar droite Ali beneen côté bi beneen côté yonent bi ñëw ci digg bi toog waaw mais bu fekkee yonent bi day ñëw ci xalaqaatu zikri yi di la ba sonn de bu fekkee li àdduna bi yëpp li fi xalaqaatu zikr yonent bi da koy wër mbokk yi loolu war nañoo bàyyi xel ni njuumte la te ñi bokk ci biir duñ ko mën a corriger lan moo tax duñ ko mën a corriger mooy li ma la wax lépp lu amul texte bu bàyyi koo ci yàlla ak yonentam ñu ànd ci juboo du yomb mbokk yi <coughs> juróomeelu laaj bi mooy azkaar yi ñu indi xilaq zikri yi nga xamante ni dañ koy indi xew-xew yi ñuy def da ngay fekk ni lam takun maarufa inda sahaaba day fekk ni sahaaba yi kat wax dëgg yàlla xamuñu woon loolu te diina ji daa am benn règle bu ko jàpp mooy man amila amalan laysa alayhi amruna wa huwa rad diina ji lu ci waay def te bokku ci dañu la koy delloo waaw yonent bi ndax indiwul ay azkar xankañ li mu indi munuñ ko jeexal wallahi ladi laa ilaha gayru koo xam ne indi na lay azkar ba ne la booy dugg ci wanag lii ngay wax ndax bàyyi na dara dara la bàyyi koo xam ne dalay waxal li ngay def ba booy tëdd koo xam ne dalaa wax li ngay tudd yàlla ba yaa ak sa soxna jaamu yàlla boobu nga xam ne bànneex a ko lal mu ne la lii ngay wax booy tudd yàlla kii bàyyi na beneen bunt والله لمو اندي بونتي يمي دوني سخلو لو كنن اندي لن لن كي دوي موتخ دقي قسني فلماذا نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير لن موتخ ني باي نغنيل بيون انت بي اندي مو يتد يالا بي مو جانغال سوبا غون صحابي ويذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ньо داكو نتود يالا تيول لنا دوخ سين سخلو ñoo dàqoon a tudd yàlla teewu leen a liggéey ñoo dàqoon tudd yàlla teewu leen ànd ak seeni mbokk di dox li ñu war dox ndax ci saxaaba yi di nga ca fekk koo xam ne buy tudd yàlla bu la nuyoo doo ko fay am na ci amut ah? min chiimati suuf yee ku nekk ci wiir di bokk ne asalaamaaleykum wa rahmatulah <laughs> lan la xataa yow biir julli julli sax bu la nit nuyoo da nga koy fay bil iman julli mo gëna a rëy yow nga nek ci biir rek lolu sëñ bi lolu qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin bu fekke lolu lañ bëgg tek nañ ci indi tegtal xulo wuñu saga wuñu mais dañu bëgg leral li ñu xam ndax li ni la wara démé wala li deet yonent bi daan na di tuddu yalla nit ñu nuyoo mu ne la wa alaykum salam wa rahmatullah wa alaykum salam wa rahmatullah di tuddu yalla bu gëna a dara gënu ko rëy ci tudd yàlla yi kon mbokk yi loolu war nañ ko bàyyi xel lan moo tax ñu bëgg a bàyyi li yonent bi génn ci gémmiñam bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi ban ne ko ba indil nañu ismullahi al aadam dinañu indil ba indil ñu sayyidul istighfar dañ la wax ni tour tur yàlla bi boko defé yàlla jéggal la li boko ko yàlla jéggal ñu ne la ñun yonante bi mu jox mo gën reuy sayyidul istighfar lañu indi waaw jéggalu yàlla yeb bi ci gën reuy nek sang bi yonante boo ko wax allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastataat bam mu jeex te yonante bi lu mu ne sang la la chaque ne sang la ndax la yantiqu anil hawa du wax lu dul lu ko yàlla wax kon boo naree dem fee ñu naan la jéggalul yàlla waxal yàlla nangam nangam xoolal ni ko yonent bi indee sallallahu alayhi wa alihi sallam lan moo tax nga bëgg a jël li mbindeef indi comme yow teggi bi Muhammad indi bu dee mbindeef la Muhammad mbindeef la ñoom ñaar xam nga ne ngëneel am kon bi Muhammad indi bokkul ak bi keneen indi juróom benneelu laaj bi te du laaj day ñëw rek mooy la hal taalamu anna al wilaya laysat bi tawarus wilaya kenn du ko donn de te ànd suufiya dañoo jàpp ne dañ koy donn ci biir suufiya ngay fekk nu papa mel bu deewee même doomam bu nekkoon caaxaankat te mag waliyu la ci seen biir la am kii nekk fii nekk kilifa dee wallahi jàng alquran am xam-xam xam fi muy jaar doomam na nekk mécanicien wala na nek balekatu mbedd bis bu papam de ñu kaalo fa la seytaane jaar yàq lépp ci bir suufee dañu gëm ni al wilaya kër gi la yem mënu ko génn waaye ndax li li lu lu alxuraan wax la ak est-ce lolu war na mën a nekk alxuraan indiwul loolu alxuraan dafa wax ni كل مؤمن تقي ولي كيف كو gëm يالا ragal كو ولي nga bokk برم بنا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم الذين آمنوا وكانوا يالا نينا ولي يالا دنيو تيت دنيو رغال نخ نيو غم با باري رغال بروم بي ني جيل كو نون سيدلي كو موم كو بوكول سي كير غي رك مونو نيك ولي واو نخ ولي امنا سان سان لوكو نيه ديف لولو بوكو نتي مبيري ñun dañoo jàpp ni wàllu yi daa yore ay laaf di naaw dangay dégg démb demoon na arsh waaw barki démb réunion ba am na kaset di ñu teg ci facebook bi sax nga dégg benn waay naan jotaay bi ñu amoon malawul laala ma ne ko teegaayam malawu asfal dem dem malawu laala réunion ñëw loolu da ngay sa bopp rek bu sonal nit ñi ci yow ci lal yi nga tëdd rek yeewu di ndax nit ñi kon lu mel noonu mbokk yi nañu xam ni ci biir suufiya dañoo gëm ni li ñuy tuddee karaama certes naam karaama am na am na yàlla da koy defal nit waaye ñoom ñoom ni ñu ko jàppee ay xawaariq ak yu demee noonu te xam nga ni am na te yoo xam ni seytaane daf koy def am na te yoo xamante ni istidraaj la min qibali seytaan am na te yoo xam ni njabar la motax dabitul karama koko lu ñu lu jafé rek la lu jafé rek la lélé nit def dara nga ni karama la fekk du karama sihr la lélé nit def dara nga ni karama la fekk du karama xam nga lan la iftidraaj la bo xamni shaytané mom mo koy def kon karama boko bëggé teunk dang koy dello ci circonstance bi mu amé ak ki mu am ci mom nan la mel imam ci mom nan la mel fofu ngay gisee lu ñuy xàmmee karama ak lu dul karama par exemple nit kaa nga fii du julli du woor mu xëy naaw ñu ne wàllu yi la dafa am karama loolu mënu nekk karama ku dul jaamu yàlla mënut am karama kon loolu dañ koy bàyyi xel bu baax a baax beneen bi ñu xam ni mbokk yi amul kenn ci umma bi ku am droit def lu wuuteeg sharia am ci sañ-sañ xaw ma nu koy waxee ba ñu mën a comprendre wax bi comme ni mu amee ci biir lenn ci suufiya amul kenn laa wax ku am droit ku am droit def benn mbir ci lu sharia xaraamal bu ko utal lay moom kay def nga lu sharia xaraamal jàkkooral ni da juum nga tuub ñu dàkkoon ni da ngaa juum waaye nag ci xaqiqa laa ko teg حقيقه موم اموت اي نخ دون لا كن نيو بوغي نخ لا نيو انديل باتو حقيقه موم لا نيو لا لوجيك لولو لولو لولو امول بنين بي داغي ديغ نيو بري دي لاقاتو تي تي خضر عليه السلام خضر لمو امون يالا موكو كو جوخ تي بوبو نيوم سين شريعه لا وون مون نانا نيك مي نيونتو سونو شريعه بي amna lol boko inde dañ leni lépp lu ñu def mu wuuteeg alquran wuuteeg sunna walla mu génn sharia kooku nañu xam ni boroom li mu def teguwul fenn lu mel ni nga jékki rek bàyyi julli wala sa sëriñ jóg ne la baal julli teggil naa la ko wala di xool taalibe ba jàng ni leen guddi gi dagan na def leen lu leen neex <laughs> wallaahi daf ñu daan dal daf ñu daan dal dañuy toog ba guddi rek góor gi génn ne guddi gi ma bët seet daganal naa rek ñu yuuxu kontaan tey góor gi daganal na affaire yi subhanallah wallahi soo ko dundul buñ koy wax doo ko gëm guddi gi ñu daganal lépp waaw li sama waa ñaan oustaz naa ma ne wa daganatan waaw wa daganatan waaw loolu mbokk yi xool la ma danger bu mel noonu li muy taal ay xale yu góor ay xale yu jigéen ñëpp nekk ci benn guddi nga ni leen guddi gi lépp dagan na imagine leen lii mbokk yi ndax iblis dina def lu mel nii moo tax am na wax sa xol day jeex te dañoo jàpp ni lu mën a nekk la ndax kii toll na ci yàlla fo xam ne bu ko neexee mu dagalal bu ko neexee mu xaraamal ñun nañ lu mel xam ngeen ni gis ngeen ci ñoom ñoo xamante dañu lay julli non yow yow julli wàcc na la waaw julli wàcc na la yow woor wàcc na la kan moo santaane julli yàlla yàlla ndax mus na koo wàcce kenn ah kon kay ku ko def dañu naan indi haatoo burhaanakum nag dëgg dëgg dëgg li tax nga ne kii wàcc na julli ki julli mën a wàcc mooy kii nelaw xale bu majeeragul walla dof ban la ci ñeme leen ko rek la ban la ci kon sharia islamiya du nangu mukk ñu cautionné ñak julli bu ko tek ci diine ji utal ko lay mënul nekk mënul nekk benen bi at-tazawwuj bi akthar min arba'a niswa ndax daganul ci ñenn ci ñom ak bari na ñenn ci ñom daganal nañu tak lu upp ñent soxna loolu jarul ñuy wër di sori ku nekk xam nañ daf day am ku nekk xam nañ day am fees del te nag li li gën a doy waar ña koy def luñ ci yow ah <laughs> moo ko sañ de da ngay dégg moo ko sañ est-ce que sañ-sañ am na ci diine yàlla ji nit am sañ-sañ lu yonent musul sañ yonent bi musul taxaw nit ne ko teggin naa la ju ndax na ni xam na ni julli du alalam Pada kenn ci sahaba yi bi mu ñewé ni ko ya rasulullah inni as'aluka murafataka fil janna damay ñaan and ak yow aljana lum ko waxon a'inni ala nafsika bi kasrati sujud ko so bëggé and ak man aljana dimbalé ma ci sa bop ci julli ñen julli mbokk yi julli mo lay jégalo yalla wasjud aqtarib jullil nga jege yàlla yonent bi ne aqrab ma yakunu al abdu wa huwa jaam bi balaa gën a jege boroomam sujjóot yow ñu ñëw ne la bàyyi teggil nañ la ko nga nangu ko te jàpp ne yaa ngi ci lu baax dañoo foyee sa xel dañoo foyee sa xel kon loolu waruloo ko nangu ku mu munti doon waruloo ko nangu defe naa ni matul ñaari weer ñii duñ ma bàyyi ma fenn am na kenn ci gaa yi koo xam ne noonu la daawul julli daawul woor doyoon waar lool lool lool lool bi mu ñëwee sam ñu waxtaan ba pare ndey sànn muy wax fi mu jaar ba yàlla dogal ma gindi ko ma ne ko waa da ngay génn ci biti nga may loolu mbooloom bi mu génnee ndox ñëpp dañoo ree <laughs> nee na bi may nekk ci lële sama papa dama soxla mënumaa gis sama yaay soxla ma fu ne mu dem lu ne mu ñaan mais alhamdulilah oustaz Oumar Sall yow laa déglu bu dee siwaat naa maa ngi julli maa ngi sama wetu jabar maa ngi sama wetu yaay maa ngi sama wetu papa. xoola dañ koo naxoon parce que dañ koo gëmloo woon ni soo julliwul tam dangay ngay dem àjjana gis nga julli boo ko xasee ba teggi lu ne mën nga koo def lu ne moo tax nga gis ci ñoom ñi dul julli dañuy tux lu lu ñu tere dañuy naan lu ñu tere dañuy def lu ñu tere lan moo tax li gën a rëy ku ko bàyyi li gën a suufe nekkatul problème ci yow li gën a rëy ku ko sànni li suufe nekkatul problème ci yow ku jël julli laxas ko sànni ko sa ginnaaw lu ne day dagan ci yow nga mun koo def wal iyaadu billah mbokk yi ndax takk lu ëpp ñeenti jabar suñu sharia moo ko dagana ah? déedéet loolu day sunu borom daf nu koo tere yonent bi daf koo tere te mu am ci ay tegtal yu dul jeex yu wér ci sunna ne am na ci jullit ñi koo xam ne ñëwoon na bëgg dugg ci islaam booba nekkul jullit yor fukki soxna bi mu ñëwee ci yonent bi bëgg dugg islaam yonent bi ne ko ah sa fukki soxna yi nag da nga ciy tànn ñeent ñi des nga bàyyi leen kooku nan la def dafa tànn ñenn ñi des mu baleen mu doog a dugg ci islaam ñun da ngay na ci biir islam jël lu upp fukk ñu ne señ be ko sañ dagan na señ bi moo ko sañ dagan na man ben jigen ndaysan sama xarit la daf may faral di wo dañ ko maye mu nek keur kilifa gi at kilifa gi gisuko gisul kilifa gi mu genn ñew papam ne ko da ngay delu mu ne ko delo mu ne ko dogoon ak yow mu ne ko bu yabo mu génn mu génnee dem papam ne ko juratuma la kenn dem yàlla dogal jamono yi may jàng ci benn dëkk ñu xamante foofu ñu faral di waxtaan mais dalay lay ay mbir yoo xam ne da nga yéemu ci yàlla bi ma laajee mu ne ma waa oustaz ndax nit am na droit nekk ak benn jabar ba sa sedd nga jël keneen en tout cas loolu de xaw ma ko ci charia islamiya ay jabar moom boo xoosee ba yore moom da ngay ay ayloo mu ne ma man de ki ma yoroon day jël kenn rek nekk ak moom nekk ak moom nekk ak moom ba mu nekk ko rek puus la fàttale indi keneen kon loolu mbokk yi ñun ñëpp d'accord nañ ni am na am na te charia nangoo ko ndax ahlu sunna yi ñoo koy def mu ngook beneen bi wootewoo ak yonent amul ci biir suufiya amu ci waxuma ñëpp de mais am na ci am na ci moo tax ku ko xës ba woote kenn ñemewu laa wax dara ndax bu ko ay mag defee ay ndaw ñëw di ko def kenn du mën a tere eh, ndaw ñi jékki xëy rek ne yàlla ma yónni jékki xëy rek ne ne yàlla ma yónni ñun fan yee dañoo toog rek benn kii yàggul dara rek ñu ne am na benn yonenti pël bu gaañu mais mi mi mi ngi mi ngi côté Tamba ah, ñun pël yi yi moom ñun ñoo aaye quoi waaw ah, ñun ñun am na ñun moom li ñu def moo gën a garaaw moom jël alxuraan bi traduire ko ci pulaat di ko jullee allah kamaaw da ngaree njuul gu eh, nee noonu lay noddee quoi ngaree njuul gu Subhanallah. Subhanallah. Hmm. Subhanallah. léegi jël alquran bi tarjama ko ci sen luga ñom di ci jullee di ci jamo yalla di ci def yëpp kenn ñemewul wax ni du ni ha ahlu sunna yi rek ñoo ñëmé wax ni du ni keneen ku ko wax ñu la ah, yow sama am lu mu wax ma tax ma ma ciy wax ak benn waaye mu ne ma xam nga la ñuy indi bees ma ne ko yaa seex wa ma Dakar minkum bi baid noppi mu xam ma xam mu noppi ma noppi ñaata ñoo woote woo yonentu day jeex du jeex te dafa bokk ci amaaraatu saa iddia un nubuwa woote woo ak yonent day xew day xëy rek iblis daje kenn rek ne la yàllaa la yónni nga xëy rek jël sa yëf ne yàllaa ma yónni kenn du ñemee tere parce que ñi war a tere tooguñu fu tax ñu mën a tere ñu toogoon ci sharia xaqiqatan danañu tere waaye comme tooguñ ci sharia sëñ bi munoo toj kee ñëw di toj nga ne ko doo toj toj dafa xaraam kon mu ne lu tax nga toj yow. loolu rek mooy règle bi gàtt. kon loolu dañuy gis ni day am ci biir beneen bi yii yépp lu koy indi mooy dañuy làqu ci ginnaaw xaqiqa. boo nee lii du charia eh, ñun waxuñu charia ñun jéggi nañ charia xaqiqa la ñuy wax waaw yàlla dafa ne xaqaqa lakum min addiini ma wasa bihi nuuha loolu la wax wala charaa lakum ah charaa ngeen jàng de waaye xaqaqa lakum diine ji moom loola nee nga tuddee ko ci charia eh, xaqiqa munul nekk waaw bu fekkee woote woo yonent grave na woote woo yàlla moom nu muy mel ah kooku mooy taamal kubra nit mën a taxaw ne man maay yàlla di ut lay di ut fu muy jaar ba nekk yàlla di ut fu muy jaar ba woowee boppam yàlla ñemee taxaw ne ana allah ana huwa nga di ko dégg te ñun fii gars yi dañ koy def waaw man maay yàlla ñukoy wax ci sa lak bi ngay deg nga wax ñu la yow xamoo li xew te li gëna doy war moy dañuy indi ci weddi texte alquran ndax ñun ñëpp gëm nañ ni texte alquran dafa wax ni fir'auna mi ngi safara waye dañu ñëw ne non non ya comprendre alquran waye fir'auna newul safara fir'auna bi mu woyé bo xéne ne mam ma yàlla lan la borom bi fa axadahu llahu nakal al axirati mu tekkee ca inna fi dalika la ibra gis nga ko ñu ñëpp gëm nañ ni firawna bi mu wootee woo yàlla dem ba tiit ba jaaxle dafa ni laa ilaha illa alladi amanat bihi banu israil ñu ne ko al ana asayta su fekkee ne man Umar Sall maa ko wax wala yow Ibrahim wala yow Moussa yaa ko wax léegi da nga jàpp ne yow yaa gën firawna loolu nga ba jàpp yow gënoo ko benn ngeen bal sax moom mu tane la yal nañ ci yàlla musal loolu dañ koy jël dugal ko ci biir jigéen ñi dugal ko ci biir góor ñi ba jigéen ñi gëm lu mel noonu góor ñi gëm lu mel noonu ñu dem nag ba gëm li ñuy tuddee waxdatul wujud maanaam jël lépp def ko mu nekk lenn maanaam dara dootul am lépp lenn la mbokk yi loolu buñ ci duggé dañuy dugg ci diine jambour motax duma ci léral lu bare bare bare ndax fitne jamono ji comme dafa bari mais bo doon léral di nga xamné amna ci diine yuñ ko jëlé mais di nga xamné amna ci diine yuñ ko jëlé muy tuddé aqidatu hulul amna ci ñuñ ko jëlé benen bi moy fukkeel bi moy jël diine diko ko feccal di tëggal bismi diin defena naa mom moom jarul sori xam nañ ko di tuddu yàlla di teug di fecc jàpp ne li jaamu yàlla la loolu ku am xel mu sel war nga xam ni lii fo la comme fo xale yu fo rek comme ay xale yu fo dong ak luñu wex wex luñu bi jaw bi jaw luñu ñu kaalaw kaalaw tax mu dagan ndax diine ji xamuñ ci fecc ak teug surtout di zikr di tuddu tur yàlla lolu mom musiba la alhamdulilah dem na ci baña koy def legui doto deg ñu tuddu yàlla waye seeni kilifa lañuy tuddu seeni kilifa lañuy tuddu ci bir fecc ma teug ma parce que amna lo xamantene yàlla xaju ci yonante bi xaju ci mbokk yi fukel bi bokku na ci nasru sihr wa shawada li ëpp ci suufiya grawul ci ñoom njabar du dara dañ koy tasaare moo tax comme baatu karaama lañ gëm kenn ku nekk ni nga ko mënee danga koy defee lu mel noonu te loolu gis nañ ko ci biir euh, suufiya waxuma it ba tey ni ñépp dañ koy def waaye gis nañu ñi koy def du jeex ci ñoom mbokk yi ndax ci biir suufiya yàlla la jiital walla kilifa ñun ñépp xam nañ ni kilifa la ñuy jiital ci yàlla te alquran lu mu wax yaa ayyuha alladina amanu laa tuqaddimu bayna yaday illaahi wa rasuli bu leen jiital dara ci kanamu yàlla mais suuf ya dañuy jël kilifa jiital ko ci kanamu yàlla te boo ma nee lan mooy sa tegtal ma dellu si ci li ma la waxoon mooy li yàlla araamal ñu daganal ko ñu bàyyi la yàlla araamal ñëw ci li kilifa bi daganal am na wala amul kon kon day am nañ ko bàyyi xel kon loolu képp koo xam ne yaa ngi dund ci mbooloo moo xam ni sañ nañoo jël lu xaraam daganal ko sañ nañoo jël lu dagan xaraamal ko su boobaa ñu jàpp mbooloo mi mbokk yi ndaw ñi dañu ko war a moytu lu ko mooy daf leen di dugal ci ay fo beneen bi mooy ci biir suufiya am na ca ngëm-ngëm bu fa nekk mooy kenn du laaj lu kilifa gi des rek amoo droit nga laaj loolu defe naa xëy na ñu koy xam ci ndaw ñu du bari waaye mag ñi xam nañu lii ma wax ci biir suufiya sañoo ne mukk sëñ bi lu tax nga def limaada Mm. li sahaba yi doon wax yonent bi li ma lu nga def ko yonent bi ne li ak li kenn du ko wax ci seen biir boko waxe waxee ñu ne daa ñàkk teggin boo ko ñu tooj la motax nga deg ñu naan bi day melni ni rek ci kanam ki koy sang di la wëlbeuti ganggang gang lu ñu def baax na mais do laaj lola moy tax mën nañu jël sa jabarte do wax waaw ñaata lañ koy def du jeex mën nañu jël sa jabarte do comme yow da nga gëm ni ki lu mu def rek sañoo nga laaj ko sañoo nga laaj ko ko toogal ba mu wax la lañ lay wax lépp nag ñu ngi ko teg ci xadri xadiya xudar ak Moussa fa la ñuy làqatu ma ma waxal la ñu bëgg a tege fu mel noonu kilifa gi ñemee def lu ko neex ñu seetaan ko su boobaa foofu la ñuy yóbbu ci fitna boo xamante ni kenn du xam ana fan lay mujj kon mbokk yi ci gàttal dama bëgg rek résumé li ñu bind bëri lool mais ñi toog ci jotaay bi te mën a wax lu ëpp li ma wax du fi jeex te mën war nañ ko def jotaayu laaj ak tontu te jàpp naa ne noonu lañ ko doxalee jàpp naa ne lima ma fi laaj ñi ëpp ci nit ñi dañoo yëngal bopp ne waaw doonte am na ci biir ñoo xam ne jàpp nañu sax loolu loolu nekkul loolu dañ leen koy nangul waaye ñu gëm ni mbokk yi sunna sunna hiya safinatu nuux sunna mooy gaalu yonte yàlla nuux de ku bëgg muccu da nga ci yegg ku ci yeggul doo muccu gis nga yaa bani yaa bunay yarkam maana loolu la dafa mel ni loolu la yonante bi wax umma bi surtout yéen shabaab yi yéeg leen ànd ak yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ngeen jël aqidatu salafu saalih aqidatu salafu saalih mooy la saxaaba yi doon dund ak taabiina yi am respect ci yàlla am ko ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam jël alquran mu nekk ci suñu kanam jël sunna mu nekk ci kanam ci suñu kanam loolu ndaw lu nekk war naa gëm lu mel noonu ñu gëm ni dañuy dund ngir yàlla ngir yàlla gërëm ñu loolu la bëgg ci kaw suuf te ñu xam ne yeneen yi ñuy wax ni yëpp ay caaxaan la mbokk yi jël ay ndaw di leen feccloo jël ay ndaw di leen tëgguloo jël ay ndaw di leen dóoruloo ay yat jël ay ndaw di leen dofloo ndaw ñi dañoo dépassé lu mel noonu nit ki da nga koy jox alquran jox ko sunna mooy yee nga ko foo dem mu dem foo demul mu dem waaye bu fekkee da nga koo bëgg a jël def ko comme benn objet benn mbaam mu taxaw rek di dóor boppam taxaw rek di yuuxu taxaw rek di këdd di def loo xamante ne leer na ne boo toogoon seen kër sa papa def ko mbaa sa yaay hôpital nga ko jëm wallahi boo toogoon seen kër jékki paa na ne rek <laughs> nga jël ci oto rek daw seeti docteur loolu ngay def. ngeen bëgg a ci mbolo ki ni he ki ni he ki ni xee ñu la leer la est-ce que ñëpp dof dof du faj moroomam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulilah ñun ñëpp a gando kàddu yi nga xamne mom la fi cheikh bi gaaral damay ñëw jox ma shaykh yi pour ñu def ta'liq parce que mawdu bi dañ ko bëgg yaatal bu baax a baax pour buñ sanku amna lo xamne buñ ko leeralul nit ñi su ndoxam ñëwé su duusi géejam ñëwé daf ñuy faagaagal yob te lool lañuy bañ dañ leen bëgg lool motax ñuy toog ak yi ñuy toog ñi nga xamne جعلوا حياتهم وقفة لخدمة السنة sunna pour ñu leen di oo ñuy waxtaan ak ummal islamiya bi xam nga cheikh bi wax na fi ne tasawuf suufiya yi soo specs mbaa nga dawal moto ñu ne yow si bid'a nga nga nekk mu ne te loolu du bid'a ma ne waaw dafa wax loolu rek suma xel dal si téere imaamu al itisam li Shaatibi bañ ko laajee taarif na bidaa tariqatun fi diini muxtaraa yudaahi tudaahi sharia yuqsadu bi suluka alayha attaabudu lillah daa mel ne ab yoon la boo xam ne dañ ko fabriqué dugal ko si yoon waaye dugal ko si diine luñ si jublu mooy jaamu yàlla dafa mel ni lu cheikh bi wax loolu la imaamu Shaatibi wax nekkul ne jubluwuñ si rafetal parce que ku sol specs imma bët bi moo leerul moo tax mu sol specs mbaa day noos rek man moom noosa tax noosa tax ma koy sol man moom ak pënd waaw loolu du diine foog ñu mun a understand loolu te si tele yi nga koy dégga fu nekk na nga koy dégg li wax nii moo tax foofu laa koy jaan sama oo imam ceebu mu ñëw mu wax si su jegee ñu oo docteur Ali Jagana mbaa ma doore si docteur Ali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 mbaɗigol bi ndeɓe sewore mbaake kos alhamdulillah rabbil alamin akamunta kon ton lafta kamin fo cheikh o ya bele fo ñiyatandi ko sunna mum sénégal mum china mum ɓe dula kotegol to i be kili aljejiɓe naal muhadara moy bi amira nyin lal meta ka moy bari alhamdulillahi rabbil alamin mum be ahlu sunna wal jamaa bulu abota alale bulu wala na keta kilinti alama alayn singol bambanti sufiya nunto ni ko sufiya doro wole mo alabatu ba ka dur kotoke wala nalka lonna dool je ke dambendi suufiyola o tuma man tiña kobbi de o tummo itol la mourado men te wole mu ka durkoto ke ka alabatu fo atata ka yelema munatinna dool ka ɗum je iman londo soto fo bi ket suufiya keta fentimiyalon ko momeno faniyala e ka keɓa ba koto ƴa tiyoɓe koyrin a ñon wulote keri ha <clears throat> aman mi o keɓa min kafo ko kununga ala jele sorwa kaŋoto a kafo bi jisna yalla kunun suto nga ala je ŋa tara ɓe sirin siñalamuyalan ko aɓe toɓen ndin ka ya tara ka fen dol le cika ka lajana ka dol cika ka lajana a ko ala ye min faya te wo fola kafo kono i ñon bulo <laughs> nga do moy a ko abdoulkadir jilani ɓe taman tamaŋola anin ala ba dala ala kaɓe boyelaɓe parka sodon abdoulkadir jilani ya muta sa woto ala korta famankori so ala dolka min batu wonene tekkorila anene tekkorila wala nabi sufiya mankunun tafo de cheikho fana ya koynila ko amanka i beeti de bari kafo bi jemi yalon ko momi bay faniyala wallahi isa jeyaɓe kotori aɓe faniyala na alfaɗo ka fo ala kawandota ako ethiopia jang ka fo habasha alfaɓe jami alon kani sira jamiŋo to ni waɗano siita misal fe gambia 5 e kamune fo ka fo ko cheikho ɓe wullale alseyam fa aɓe ta salila makka hay murna alaji ɓe bi nin to lansaro ga lansaro waɗan jam walla fitiro mo wulta kata ɓe ta fitiro salla makka muntu le makka e fituro sali makka salita le yuna ite ko wul jay koy kata fituro le bayndi makka iño wulo ñin ne musu fiyati bi bi ta e ko do be salo la be mol salinde kan jama ngoto ya jaya blo fi nyanga ya sabana alot e par salole kay cheikh o mo neketa ɗum ako ɗole ɓe baɗala e lafta tune nan datawolle kanandi datawolle kanandi mol fanan ka lañinna i ka fo eskey eskey alingan hakkilo tamande ahlusunna waljamaa i kal kumandi minna sonaya tan wallahi adda hata sonaya bije ka wandi dindigol take ken mbay faloto iɓe ñuuf ibe koli pala ala aje kasseto ibe ño koli pala un dina le wadi ete dunia soto laje ite lakira soto laje ibalo sedibe oto naɓe wo ñama ngaldani ala kamma wallahi sunna adiyatale sunna dahabi je ikake motimi anan koye foriya soto ifayye e ete kela jongola jongote bari be kala ala la jongoti subhanahu wa ta'ala man la fika diyama wallahi ala ya long bawo na sheikh bi jang men keta sheikh ali chamti sheikh alaji sar la duño kan c'est microphone morundi atakan insha allah ala barka بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آه، دقرم الشيخ عمر في الحقيقة من يوم أبرو وقدرة وعندما يوم أبرو دقلو نجرنو تا إن شاء الله تعالى نجرن بو بريلا لا أم تيفي سيفنا لو جينا أم سولو رك موي نيو دغ góor-góorlu jëfe ko léegi-léeg nit dem si muhaadara wala dem si waxtaan ñëw ne xee diw sàngam lu mu wax lu wax am na solo waaye bantaam lay gën a am solo su fekkee ni jëfee nga ko bon sëñ bi ñëw na waxtaan na waxtaan wi gudd na gàtt na lu ñu gënaloon sax mu gën a continuer si ko loolu bu wax ji bëree mën naa tax lii tax ñu fàcc leneen bi si ko loolu fii rek lay am di ko jërëjëfal lool ala kulli xaal dégg nañ lool di ko yàgg nañ di dégg ay mbiram yàgg nañ di dégg gis ay programme am waaye yàlla teel a dogal pour ñu toog si benn jotaay dafa nekk daal gërëm ko ak gërëm njaatigéem yi ñoo xam ne ni ñooy ànd ak moom tay mu nekk di gërëm di jërëjëf ñu daal fii la ñu mën a am incha allahu taala jazallahu aljamia xayral jaza وبارك الله في الجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله لك شيخنا من يودي عندو شيخ علي لمواخ خمنا رك سنتي بودا فام لمفواخ أم جرين تراب أمنا أم بوك ولا في نبوري دعوني لمواخ واي دفعوا خلوا خمنا دفع ريلو نان yow yàlla nga jóg rek ne biig gisoon naa yàlla toog naa ak moom ñu waxtaan mu ngi toog toogin bu rafet xam nga loolu loolu benn la li cheikh bi wax fii li gën a nekk xaw ma ndax nuñ koy waxee sax ki kanasu baati kanasu lañ siy teg nga ne ki gën a kanasu ak wax bu gën a dof mooy nga ne Abdul Qadir Jeylaani moo ngi yàlla nekk si di saanof di bicc si boori géej bi di doxantu yàlla daal di faxastalu Abdul Qadir Jeylaani jàpp ko dafa mel ni yàlla dafa tëlalee ji mënatut ku wax loolu mooy ne yàlla manut moo tax ñu koy dimbale laa ilaha illallah lu gën a garaaw loolu am na ñu ne Abdul Qadir Jeylaani dafa toog benn bés te ñoom ñoo koy wax man maa ko dégg fii Serekunda bii laa ko déggee suñ taay mi xalel Abdul Qadir Jeylaani dafa tukki woon mu ñëw mu fekk ah, malakul mawti ñu jël ruuxam eh, ruuxu taalibe bi lañ jël mu ne leen kii lu ko dal ñu ne ah malakul mawti de moo ñëw fii fen bi foofu la commencé nag ñoom gis nañ malakul mawti bam mu koy jël moo ñëw fii jël ruuxam ba ko jëlee mu naaw ak moom ñu asamaan Abdul Qadir tamit naaw topp ko asamaan bu Abdou Khadir Jeylaani duggee si asamaan foo asamaan bi mu dugg topp ko ba si ñaareel bi rek mu daal di timpa malakul mawt mu ne ko foo koy yóbbu xanaa man maa la ko sant déggal lu gën a yéem loolu lu gën a yéem lu gën a yéem loolu yëpp yàlla ne leen yee eh lan lan moo xew mu ne ko li nga sant moom laa def kii di ma kii di ma topp di ma dóor Abdul Qadir Jeylaani ne ko yàlla yow sax yow sama bu sama nguur moo gën a neex sa nguur léegi ñuy wax lii ñun duñ wax si loolu am na keneen ku fi nekkoon fii Serekunda si soose sax la ko doon def mu ne bés yi jënte yenent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam malaaka yi ñoo ñëw di fecc ñoom ñoo koy wax ñun dégg nañ te ku fi nekk xalel Serekunda dégg nga loolu mu ne ñu def benn <laughs> dansin ya luwaloo def benn giw géew commencé nag kii di woy kunu simbi soo kunu ñaadooma laa ma jibril di ko wax malaaka yi di ko topp yàlla si boppam ne leen eh boo leen way palanteer bi mu ne leen dinaa ñëw ah seetal ma dof bi lii yëpp ñoom ñoo koy wax lu tax lii duñ ko leeral ummal islamiya bi dañ war a bàyyi lii muy dem te nit ñaa koy gom ba keroog rek laa fekk at kaset boobu nit di ko déglu mu naan eskay wallaay nit ñi di ko gëm kon looloo tax mawdu bi maa ngi leen a wax ne lii mooy staatini mawdu bi hada bidayatu hada almawdu laalla man yuridu an yualliqa ala mawdiana fal yualliq suma nahnu mustaiduna bi an naatiya marra thaniya jazakumullahu xayral jaza ñu ngi leen di sant di leen gërëm mbal bee tentu la mbal jayi la teew bi nga xam ne moom lañ fi teew kontaan nañ torop si yéen masaayix yi xam ne bàyyi nañ seen liggéey tamit ñëw bokk ak ñun comme ku mel ni Cheikh Ali Thiam ma fii lañ mën a yemal comme que cheikh bi demande bi dafa xaay te ñu ngi dem si benn Skype te TV boo xam ne Angleterre la la nekk te dañ war a start fofu tamit benen programme bo xamne eto kulok la mangi ngi jéggalu incha allah fii la yem ak yéen wa barakallahu li jami